Fokna naa ni tey daje bi wax dëgg neex yàlla dal na xel ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku ci nekk ci turam ak santam di jiite monsieur le gouverneur Sall monsieur le préfet les élus monsieur le maire le bureau municipal le conseil municipal de Saint-Louis et de Dagana

ndax teeru bu mag teeru la maag sama délégation ma ànd ak sama cabinet sama directeur de cabinet samay conseiller technique ak samay chargé de mission ak ñépp ñoo xam ne ñoo yore poste yi nga xam ne ci direct ci ministère bi ñooy liggéey ci lii ñu toog tey di waxtaane may euh, nuyu bu baax c'était Astou Fall mi nga xamante ne ci sama cabinet la bokk da fay doomu ndaat comme man motax mané nako jox wacc ko c'était sans yow tamit maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu ñi ma àndal di len wax ni suñu ñëwé en si forte délégation li ñuy dox moo ñu li ñuy dox lan la dañu ne Sénégal kenn mënu ko développer sans jigéen ni am na amul jigéen ni Sénégal ay jambar lañu ñu nango liggéey ñu ne nag ñun on a compris que jigéen ñi ku leen jàppale mën ngaa développer sa réew parce que jigéen bu amee épanouissement kër gi dafay am épanouissement kon réew mi tamit dafay am épanouissement te ñun dañu jaay projet ba ngeen wóoluñu dénkuñu lengay kon tey jii bu ñu taxawee ne leen dañoo bëgg ànd ak yéen liggéey foog naa ni jaadu kon nak bu ngeen ñëwé déglu ñu muy wane moy mbir mi ñor na leen limay wax nak ak diko def yépp ci instruction monsieur le président de la république du Sénégal la monsieur Bassirou Diomaye Diakhar fay muy goor bu yërëm jigen goor bu yëg jigen mok suñu càmmiñ monsieur le premier ministre Ousmane Sonko di ñoo xamante ni dañu neex àndal liggéey moo waral sama teewaay fii tey ma toog toogaay bu ma neex parce que dañ maa dénk dañ maa sas dañ maa yan ne ñu fexeel madame la ministre ba jigéenu Sénégal fépp fu ñu mën di nekk ñu mënal seen bopp ñu am autonomisation économique durable loolooy sama tànk tey de mbir mi nag xumb na xaw naa nuroog sax luy doon politique waaye yàlla xam na ni dañoo liggéey si liggéey boo xam ne ñi ma dénk ministère bii ma yor ñoo ma ko dénk waaye nag jataayu jigéen faaw bu xumb waaye dañuy liggéey dinañu xumbal waaye dinañu liggéey kenn du yéen jaaraama jigéeni Sénégal li ma ciy dolli mooy bi ma ko président de la république dénkee ak premier ministre dañoo tëju xool pexe pour xool naka lañuy def pour xëy na li fi nekkoon baax na naan waaye nañu fexe ba mu doon loo xam ne durabilité la ñuy wax maanaam jigéen dootul toog di soxla dara te du ko mën a faj parce que loolu mooy feebar feebar bi njëkk mooy nga bëgg a faj sa aajo sa njaboot tiim la kii naan la yaay jox ma ma jëndi kay kii naan la yaay jox ma ma duggi

dañuy waxtaan ak yéen jàppale leen ci lépp lu jëm ci formation yéen ñëppay wax formation jigéen ñëppay wax formation formation bi nag lu yaatoo yaatoo yaatu la ci jàngal leen lu ñuy téye xaalis moo ci jiitu ndax dañoo yaaxoon ba nga xam ne jigéen yàlla daf ko jox xol boo xam ne bu yoree rek day bëgg faj lépp mais il faut ñu jàngal leen naka lañuy ñuy téye xaalis ba boo ko yoree tey bi nga xam ni bëgg ngaa def lii waaye mënoo koo def dangay xaar ba suba ndax xaalis bi bu jeexee dootoo mën a yeggali liggéey bi bu ko defee nga daal di dem fenn leb fa bu subaa boo defaatee noonu doo am loo fayee foofu dem feneen ñu lebal la nga fay foofu dem lebaat ñu lebal la nga fayati fa ca tool ñu dëkkee fay bor rek loolu nag la ñu ne dafa war a jeex ci réew mi ndax mutuelle euh, de crédit baax nañu waaye dañu war fexe ba aussi mu bañ a yàgg nit mënul dëkk ci di leb dundam yépp mënuñu dëkkee leb kon bu ñu lebee ba benn waxtu ah war nañu am nag autonomisation war na ñu mënoon suñu bopp doon ay femme leader ay femme d'entrepreneur d'entrepreneuriat nga xamante ni dañuy mën fu ñu ne tel sujet bëgg nañ cee def dara nga ñëw taxaw ni man de yor naa nangam banque jigéen ñi sax mi ngi ci suñu suñuy projet créer banque boo xam ne jigéenu Sénégal ñoo koy moom ñoo koy financé waaye ñooy financé seen bopp wëlbati ko di lekk seen i dividende donc xaalis ba muy jur sax ñoom ñoo koy moom kon tey jii suñu teewaay fii loolu lay tàmbali ànd ngeen ci wala ànd ngeen ci loolu la ñu fas yéene tàmbali ànd boo xam ne àndu dëgg lay doon di waxante dëgg waaye ànd ci dëgg xaalis ku la ko lebal da ko war a fay fay la sant te boo ko fayee pour le principe day tax nga xam fi nga jëm bu ñu la lebalee euh, deux cent cinquante mille nga ni fii ñaari at bëgg naa mu doon un million cinq cent loolu dañ dañ leen koy jàngal naka ngay def ba yegg foofu ndax il faut nga moytu yenn piège yi ndax foog naa ni léegi jigéenu Sénégal moom yàq waxatuñ ko léegi moom yàqatuñu am de léegi xaalis bi moom dañ koy dajale la ca war a génn ñu am fuñ ko def waaye du ñu yàq seen xaalis ci ay xew ak ci yi nga xamante ni daf ñuy tardé loolu moom ñëpp bàyyi nañ ko léegi waa Saint-Louis nag xaw ma ndax bàyyi na ñoom de ah alhamdulilah al kon nag mun nañoo ànd ndax ñun dañoo fas yéene lu mel noonu ñu wàññi ko ci réew mi bu baax a baax a baax ndax mun nañoo liggéey nag waaye mun nañoo tamit def leneen kon loolu lañuy jël léegi teg ko fee. man de ànd naa pare naa ànd ak yéen ci li nga xam ne moom le président de la république du Sénégal bëgg bu loolu weesoo liñ ciy dolli mooy dama ànd ak suma càmmeñ monsieur le ministre de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire docteur Alioune Dione lii ma leen wax ci téeméer euh, juróomi téeméeri million yi ma wax moom moo joxe. Euh, téeméer ak juróom fukk 150 millions parce que moom it dafa am ci biir liñ ko dénk côté boobu lu mu ci war a liggéey bu ñuy wax économie sociale et solidaire weesuwul li ngeen di def ci groupement yeeg réseau yi ak coopérative yi moo tax mu ne moom it da ciy dugal loxoom ñoo naroon ànd waaye ba ñu paree démb dafa dellu ndax urgence bu mu am Dakar moo tax ma teewal ko fi kon loolu bu ngeen ko amee ñaari ministère am na yeneen levier sax ndax am na ay yeneen organes yuy leble loolu yëpp gouvernement da ko teg pour jàppale leen jàppale boobu nag yéen a war a relever le défi ndax damaa bëgg ngeen sagal ma nag ndax man duma nangu ko tudd jigéen ñi nanguwuma ko tudd jigéen ñi donc sagal leen ma ñu ànd relever la defi wane ni Sénégal on ne peut pas le développer sans l'appui des femmes li nga xam ne nag jëm na ci

valeur ajoutée loolu nag la ñu bëgg jigen bu nek xamé ko nonu ñu dem nak ci volet filiérisation ñi and liggéey ci dugub ñi and liggéey ci mbokk ñi and liggéey ci lu ne lolu buñ ko organiser je peux vous assurer que jigen ni dañuy sen liggéey da fay te li ñu bëgg dinañ ko am amna yeneeni projet benn bi ak ministère de l'agriculture monsieur Mabouba Diagne sama càmmiñ bobu mom tamit dafa bëgg développement jigen ñi ba bi ñuy doog a tàmbali sax rek lañ ci waxtaan mu ne ma dama bëgg ñu def projet boo xam ne dañ ko tuddee une femme trois brebis et un géniteur maanaam gàtt yu jigéen ak gàtt yu góor buñ la ko financé xam nga ñaata la boo demee di liggéey bu ñu demee ba nekk ab gétt nga mën a commencé di fay ndànk-ndànk di nga tabaski sa jëkkër boppam dootul tëju di nga am loo fayee sa ouverture des classes doom su booba mais surtout nag da ngay jaay nekk femme entrepreneur ndax gerte moom muy bëyeeg xar dafa gaaw donc soo amee loo xam ni fi mu ne lu tolloog am na vidéo yuñ ci defar femme boo xam ni ñaari at la def waaye ci ñaari at yi gis nañu gerte boo xam ne 17 xar a ngi ci woon mais biñ koy jox kàddu mi ngi naan jël naa ñaari xar jox sama jëkkër ci tabaski ji te sama doom yi ñoom ñëpp li war ci kër bi defal naa leen ba maa ngi denc nii xaalis ci sama lafu sër dama ko xool nag mun naa ko jàppale ñu tabax dara ci kër gi wala yu demee noonu noonu la ñuy liggéeyee famille nous sommes de bergères ñun ñoo war a yore njaboot yi kon formation yooyu fexe leen ba na ngeen ko boole ci seen bu ñu leen lebal rek ngeen dem d'ailleurs foog naa ni euh, dispositif bi ñu teg kenn mënuñoo sori kon nañu leb nañu euh, développé wu waaye nañu fay machine wal yi nag. foog naa ni luñ ñuy jàmbat toujours la soxla ngeen ko ndax duggu kenn soxatu ko ñu bokk ko sox donc machine yi daf ciy